dimanche fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2023 ji jéya mu dig làkk gu metti la ñu daal di nemmeeku ci ancien garage bi nekkee ci diwaan bu Touba foofii ay jaaykatu pièces détachées automobile lu ëpp juróom fukki ci ay place ñoo daal di tàkk ba jeex ñenn ci ñi ñàkk seeni palaas ci lakk lee di jëlaat lépp di ko delloo ci loxo borom bi. xaadim loolaa tudd ñun ay ndaw lañ. doon liggéey ci bërëb bi. waaye nag lépp loo gis ci àdduna rek jaam moom da ngay muñ ànd ak sa dingite dignité buñ ko génnee ci nii rek dara desutul foofu. waaw waaw bokkal naa ci lakkale man maa di nag Baye Fall nii man la Pam Ndiaye. suñu casque daal maanaam daal dara génnut vraiment daal dara génnut te metti na itam. parce que dafa nekk loo xamante ne bi nii mu ngi tàkk ñu taxaw di xool mais taxul ñu mën ci dara itam loolu bàyyi ko ak yàlla rek parce lépp ci yàlla la mais xaw naa diire nag parce li tax mu diire mooy ndox mun ko fayee amul ba pare aussi sapeur yeex naa ñëw liñ ci mënoon def nañ ko ndox mi gënoon a jege it jël nañ ko sotti mais taxul mu mën a fay itam mu jot a ñëw ci lim jàpp ne moo waral jëye ji sabag baa dafa am ko doon suude ci ginnaaw fil yi moo jàpp na ci courant bi la jógee quoi mais bi mu jàppee yeneen place jàpp parce que ay kaw suuf lu bëri ñu ngi fi daal te yooyu bu jàppee ci ndox dong moo ko mën a fay ndox mi jeex na quoi bu kalaate as yi ñun ñu mujj daw bàyyi noonu li fa jot a yàqu jamono ji dana jafe lool ngir ñu mën a xayma lu ni toll waaye jàpp nañu ne daal ay millions yu bëri moo fa yàqu non man mënu ma koo xayma wax dëgg yàlla fi bëri na ay pont ay palaato ay dixi ay ay carran ay moteur lépp a fi ñun ñoo jàppale waat suñu bopp man moom du ma woo kenn ci jàppale. plateau dañuy sant Serigne Touba rek. ay moteur a ngi fi lépp a ngi fi. dañuy sant Serigne Touba rek ndax ay ndaw kese lañ munuñ dara yàlla rek a man bagage yi fi jaay kenn ku nekk ak li ngay jaay bagage oto daal la ñu doon jaay bagage oto daal bagage sain ci woon mboolu dem ci oto daal moom la doon jaay waaw ay million la moom vraiment ay million la moom parce que lii yëpp boo ko calculé ma doon xayma li fi lakk euh, ëpp na 100 millions ah. ndax parce que xaalis bëree bëri lañ fi investir xoolal borom place bi bërki dem boo njaay la doon tax defal yeesalaat place bi lim ci feree ci xaalis kenn mënu laax nu mu xëy lépp daal di xëy làkk nii tey vraiment daal kuy dimbali doomu aadama kuy dimbali jullit bu sonn vraiment mën ngaa mën a ñëw fii jàppale leen dimbali leen. kenn ci ñoom di ñaawlu doxalin bi amoon ci biir garage boobile loolu waral bi Chapor ñëwee amoon jafe-jafe ngir mën a accéder ci biir mu jàpp na ñoom ñoo war a xoolaat seen aw doxalin. waa boo bëggee dégg-dëgg garage bi moo amul organisation dañu waxante dëgg rek ndax porte bi yow sa tànk sax boo fi ñëw di di fi ñëw sa da son sonn asuma laa ngay oto kon loolu dañ cee war a bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax. waaw ñun ñooy organiser ñu bopp nit koo gis bu ñu la organisé te nangoo organisé doo dem ñun ñooy organisé suñu bopp. lakk gi nekkoon lu metti lool diirub ñetti waxtu sapeur ak itam otoy Touba ca kanam ak population bi ak ñi nga xam ne ñoom la seeni place doon lakk foofii nekk nañu fa ab diir ngir am jafe-jafe fay lakk gu ni mel ci fàttali lu ëpp juróom fukk ci ay place yu doon jaay ay pièces détachées automobile ñoo fa daal di tàkk ba jeex lañu fa jota ñàkk ci ay koppar nekk ay millions yu tàkk lool